people bienvenue dans votre site préféré tey nag yaakaar naa ne mi ko séenee euh, gis ne nit ñi bari nañu lool te Grand Théâtre de Dakar fo sànni mbàttu mu tak nax lan doomu Ouza euh, mo xewlu muy ajuza nee la dara di yomb ndax momi dara yombul xale bi pare bi demba tay do a ñew nee la bu spectacle bay koog ajuza su dee sañse bàyyi koog moom waaye rawatina tamit nee la bu dee woy rek xale bi

Mhm. en tant que artiste chanteuse ça m'a xew la grand théâtre mhm. ngay rakk ci Adiouza tey nan la la def ba affaire bi def na me plaisir vraiment voilà dafa dafa sax tax ñu jógee fi ñu nekk ñëw bu fii rien que pour rek euh, assister ko et tout et j'espère que inshallah allah dina si génn incha allah sa teewaay fii ci grand théâtre waaw li ko waral mooy sama jigéen sama rakk sama xarit muy euh, Adiouza Euh, dafa def lu lu ma marke trop mooy dafa def morceau invité ma ci di def anniversaire am woo ma ne ma dama bëgg ñu jouer morceau bu ñu ànd looloo waral sama teewaay. waaw aji nag moo ko waral sama sœur sama xarit di ku baax buy def album li a wax rek woo ñu ci muy ku baax neex a fekk France buy def album dañuy woo ñu ñëw participer ci kon bu wootee bis bu mag bi waaw ñun. lu ñuy def lu dul ñëw rek jàpp ci. waaw tout d'abord ba ma nuyoo mbokk internet yi eh, maa ngi am mbégte vraiment ñëw fii Grand Théâtre accompagner sama sœur eh, Adiouza mi nga xam ne vraiment eh, modèle la. Ah, je dirais que ni moom euh, moom rek moo ci musique dem ba am ci ay diplôme xam nga lolu c'est c'est quelque chose quoi ñu ñu ñu man mbok man en tant que jeune frère man dama koy dama koy saluer. content hmm? rek bëgg Sénégal yëpp jappalé ko comme li ma doon wax légui sa yenen collègues yi bëgg Sénégal yëpp jappalé ko rek xam nga ñun mom ku jàppale aji rek jappalé nga ñu waaw. en tant que ngeen.

ak marim baabeeg tama yi yu saf yi yëpp si baax yooyu <laughs> yóbbu la neexee da ngay lu mat aji yow yaa gën a mat yóbbu la waaw li waral sama teewaay ñaari casquette laa fi ñëwee muy xaji xaji kundul ca Brooklyn ñu marraine ko mu ànd ak rakam ñu baax ñu jóge Espagne ñu ñëw indil ko enveloppe am joxal ko ko Adiouza ma ñëwaat fi en tant que artiste ak moromu artiste am papam di sama papa Père Ouza moom ak Sow Sabor la woon sama pap kon nag ay doomi ndaanaan ñoo fi daje Thank you. tur bi naati la. Euh, Nabou Ngom Ngom nga sant. laay léegi laa yow sama yaay nga sama yaay Ngom la sant dama damaa bëgg sama yaay. ndeysaan yow lii moo tax nga baax tubaarkàlla macha allah ay Ngom waaye. Eh. Ngom Ngom Ngom. tey nga ñëw ñun géejawaay lañ am te géejawaay mooy sunu pari ñun doomu géejawaay su jógee ñun dañuy jóg sidit bi day jóg deret bi day yëngu ndax ñun dañoo bëgg géejawaay xayoo aji usa jigéen la sunu jigéen la léegi suñu wooyee ñëw xam nga mun a ñàkk ndax géejawaay gi mu dëkk géejawaay yi tiituroo te man maay seen mag maay magu géejawaay maay maa géejawaay loolu yàllaa ko def su ma ñëwee man ñëwal naa ñëpp ñëwal naa Balla Gaye ñoom la dëggee tout képp kuy mbër géejawaay ñëwal naa la madame dammeel bëgg la fasal nga ma samay bu mu xol am moore suma la xamul won dof laay doon cey lool sa teewaay fii ci Grand Théâtre waaw sama mag la doomam sama doom la dama ñëw ànd ak euh, Zeyna ak Moussa Pathé ñu pour tere ko ci bi tax ma Papa Kissé Pène nuyu nañ la ngi di fay euh, waa Bienvenue People

c'est vraiment ah. ma gis ci ginnaaw. ah. yàgg naa fekkee spectacle. waaw musuma gis lu nekk. eh nekk de. drapeau gi ma doon dégg ngeen mu dee. kan la. ndekete. kan la. drapeau bi ma doon dégg géej sama mag rek Khady Koundoul moom lañ mariné ah Khady Koundoul depuis États-Unis moom moo fi yebal ma ñëwal ko rek teewal ko ànd ak Oumou Sow. li nga sañ sa mbaa xeeboo. waaw xeebu ma ko daal waaw ah, dama ñëw jàppale leen rek jàppale Adji ah. Ouza eh, ñu ngi toog ak ki nga ne sële si bu mag la ci mbim réew muy Tata Sadia Tata nii nii. waaw ah, maa ngi leen di ci ñëw. mën nañu xam lu waraloon sa teewaay fii ci Grand Théâtre. waaw ah, Grand Théâtre fi ñëw gis nga ñëpp ñu fees del li ñëw pour soutenir Adji Sarr parce que vraiment Adji Sarr comme li mu wax saa su fekk et vraiment elle est une femme exceptionnelle. lu waraloon sa teewaay. waaw Adji Sarr sama doom la. wala ma tëdd ci ci marraine bi moo tax ma teew. benn sañ. 10 collection lañu. đâu anh